né à Moutarou Ndiaye Lamine Diadjou Lamine Diadjou Lamine Lamine Diadjou oh Lamine Diadjou Lamine Diadjou Lamine Diadjou C'est une position c'est une position privilégiée pour Lamine. Oh formidable Formidable Lamine Diadjou dal leen ak jàmm mbokku internet yu seen football TV di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku internet yi vidéo bi la yéen a moom yéen ñi xamante ne ci commentaire yi yéen mu demande bu baax a baax jour bii di toj championnat Sénégal ñu koy wax Lamine jaajo nekk benn jour bu mën a jouer Sénégal wala sax Gambie nañ si daan générique bi te ñëwaat. Oh di leen dalal jàmm di leen nuyuwaat di wax ñi xamante ne dama bees chaîne bi welcome bienvenue abonné leen cliqué leen si cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñu ngeen mën ko seetaan bu leen fàtte tamit une vidéo c'est très important mbokk yi Lamine Diedhiou bii yéen a ma ko demandé bu baax baax baax ci commentaire yi ndax nekk na benn zone bu xamante ne dafa toj Sénégal franchement bëri na ñu xamante ne dañuy dem stade Lamine Diedhiou daf leen intéressé lool ndax mën na dribble am na explosivité et c'est intéressant pour wa gambi wala sax waa Sénégal ba tax na question bi lii la mbokk internet yi est-ce que da ngeen gis ne Aliou Cissé dafa war a intéressé wu dossier bi donte booy bile gambi la juddoo wala dafa war a bàyyi waa Gambie ku si nekk mën na ma jox ak gis-gisam ci commentaire yi man fi vidéo bi dinaa leen wax sama xalaat par rapport ak booy bi di Lamine. Lamine Diédhiou hamun, pour ñi ko xamul moom juddu le 19 février 2003 si benn dëkk bu nekk fële ci Gambie bi ñuy Je am 19 ans si taxawaay 1 m 73 donc je suis le Messi Gambien am na ñu koy tuddee noonu moom nee na dañ koy wax ci Messi dañ koy wax ci Cristiano Ronaldo waaye moom nee na Cristiano Ronaldo lu bëree bëri jàng nag ci moom mooy côté mental ni muy fubalee donc c'est toujours intéressant muy xool ñaari naanaan yooyu. nekk benn jour bu xamante ne ailier droite la faut savoir que nag c'est pas la première fois mu ñëw Sénégal ñëwoon na fi Sénégal moom ci ay interview yu xamante ne def na ko nee na ñëw na fi Sénégal Mbour malheureusement centre boobu baaxoon na mais amul woon continuité mu demaat Gambie mu demaatee Gambie fi doon na football d'ailleurs sax moom gis ngeen que euh, mas na seulement équipe nationale du Sénégal ci petite catégorie bi ñenn ñu ngi naan local mais moom moo expliqué ne ci petite catégorie bi la parce que ñu bëri ñoo jàppoon ne Sénégalais la moom aussi bi ko woowee mënul woon bañ mu accepté donc moom mas na porté maay équipe nationale du Sénégal nekk benn jour bu xamante ne dafa explosif li ñu mën a wax ci Pape Ousmane Sakho bi nekk fële ca Tanzanie nekk jour bu xamante ne ñoo ngi koy xool bu baax a baax donte fii la nekk Afrique waaye dafa am ay qualité yu xamante ne nekk na ci moom Tenez te nekkul ci Europe booy bi c'est la même chose c'est même chose boo xamante dafa am explosivité trendy, bu fekkee deux mois yu njëkk yi xamante ne joué ko ndax gaañu gaañu ndax bu kenn fàtte ne moom daaw rek la ñëw fii di Casa Sport jël coupe Sénégal mu nekk lu xamante ne moom daf ci kontaan lool ndax Casa équipe mag la moom moo ko wax ne ne Casa boo fa nekkee sol seen maillot vert boobu noonu nga dégg gars yi supporter li ñuy def xam ne man équipe mag laa nekk moo tax nee na moom premier objectif moo di mu ñëwee fii di Casa Sport mooy jox leen trophée yàlla dimbali ko am trophée bi saison bi lee moom dafa gis ne bokk si saison yi gën a métti

ñu posé question nag pour la première fois ñu ko nañ ko posé question ci benn interview bu ñu mu xamante ne andi woon nañ ko entre Sénégal ak Gambie fa joué mu ne non instant yi décidé gu ma nag waxaguma fan laa joué mu defaat beneen interview boobu moom c'est clair mu ne man nag Gambie laa bëgg a joué donte mosoon naa ñu fële ci euh, suñu si petit catégorie bu équipe du Sénégal mais ba nii nii nii am na Gambien yu xamante ne voilà da ngay gis ne si réseaux sociaux yi da nga naan wax Sénégal ngir yàlla dimbali ñu rek ñu bàyyi leen ak joueur bi man sama opinion personnelle en tant que seen football TV en tant que ko xamante ne équipe du Sénégal dafa may intéressé intéressé lool ñu dooleel équipe bi jour bile comme que ñun ak waa Gambie ay grand frère petit frère la nañ leen bàyyi jour bi ñu mel donte am na talent mën na football mënoon nañu dooleel suñu baax bi gis ngeen ne démb defalu naa leen benn vidéo di leen wax ne. suñu côté yi à part Sadio ak Ismail Sarr foog ñu seet yeneen alternative loolu moo taxoon sama andi Nicolas Jackson ak Samba Diallo mais je pense que Nicolas Jackson Samba Diallo Kaali am Amman Ndiaye Diédhiou ak yeneen joueurs yu xamante ne ay joueurs de côté lañu ba si Pape Ousmane Sakho ñooñu rek doy nañu pour mën a renforcer équipe nationale Sénégal joueur bi ni mel am talent ñu koy ñaanal mu am réussite ndax am na ay objectif ba tax na moom wax na ne bëgg na dem Europe découvrir Europe progresser. Euh, gagné ay trophée bind turam si histoire bu football fii Afrique te loolu lañ koy ñaanal donc man sama opinion xam ngeen que Aliou Cissé bu ko woo du ma fi ne polémique la du mu ne scandale la peut-être dinaa ko comprendre ci benn logique ndax boobi talent la mën na progresser lu bëri bëri bii muy dugal mais mais c'est extraordinaire contre TFC crossé en ko ba kii nekk KFC seen kii seen présentateur bi naan daa di di daa daa di di daa mais vidéo bi dama koy seetaan ba sonn tellement fantastique et même pas du loolu kese ak yenn vidéo yi xam day dribble taf taf deux personnes trois personnes mu teg la genre nii rek jar nañu ngay dem championnat Sénégal match bu nekk di ko xool naan franchement euh, magicien dëgg la mbokk li moo nekkoon découverte si Boy Billé ci commentaire yi ngeen wax seen xaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax beneen sur seen football TV.